selew la palaasu defarkatu daal yi bàyyeekoo Medina def uh, jamono jile jamono bi ci diggante fii ak Korité lu si des bëreetut mais seetlu nañ ne marché bi amagul benn yëngu-yëngu bu si boo xamante ni tax na suñu xel dal parce jàppoon nañ ne moment bi dana fekk clientèle bi uh, accéder fii ba ba dootuñ dese benn marchandise mais gis nga marchandise mu ngi des ci place yi bu bari sax. gis client jafe na leen lool. dara doxagul moom moment bi moom cordonnier yi moom vraiment gisaguñ seen bopp parce que souffrance bi ñu nekkee moom marchandise bu des seen loxo te loolu gënalu leen parce que événement bu amee li nga xamante ni mooy sa proposition mooy lépp loo am si loo xamante ni da ko war a écouler balaa événement bi da ko war a écouler pour mën a programmer sa événement naka la mën a duggee parce que événement day jàll mais après événement aussi da ngay yeneen liggéey. mais moment bi ak contexte bu mu tëddee nii xëy na période élection yi la mais jamono bi daal en tout cas cordonnier yi moom wax dëgg yàlla neexu ba neex mais moment bi moom gisaguñ seen bopp bu baax. mu nekk situation bi nga xamante ni bu bees la te bokk na ci li ko waral di importation dal yi. ah am nañ yaakaar ne euh, su fekkoon ne consommer local bi doxoon na xëy na mën naa am ñi si dëkk bi danañ jënd. bagage yi mais consommé local bi boo gisee mu am rupture c'est parce que importation bi moo ëpp li ñuy li ñuy liggéey ci réew mi parce que réew boo waree di exporter léegi li ngay importer gën a bëri la ngay exporter loolu empêchement la ci doomu réew mi loolu moo gën a tax ñu ñu paralyser parce que secteur informel waru loolu am benn concurrence bi parce que concurrence déloyale bi yëpp li yëpp moo ñu ko yóbbee. ci loolu ñu ngi ñaax nguur gi mu jàppale leen. ndax jamono ji ñu nekk seen liggéey dara doxu si.